dërëm bu amul àpp Sidi Lamine Niass dem na waaye ay Sidi Lamine Niass a waaye itam fan si Sidi Lamine yi ni ñu nekkoon fan sam démb toxal ngeen loolu Cheikh Niass doon na ko ak ñu mu àndal ñu leen sant di leen gërëm. jërëjëf euh, tàccu leen ko bu baax a baax euh, imam euh, oustaz Assane Diouf ci ci tënk ci ay kàddoom dellu siwaat na ci taarixu Walfadjri mission bi nga xamante ne moom la Walfadjri amee ba ba léegi. Eh, diggante Walfajiri ak askan wi lu guleet lu yàgg la eh, bokk na ci tamit Walfajiri ba mu dooree ba yegsi fii tey te askan wi di ko wéttali ko loolee oustaz dikkaat na ci xamal leen i tamit ne eh, Walfajiri yéenay Walfajiri yéen askan wi waaye aussi métitlu li nga xamante ne moom la groupe bi di daj ay nitam ay liggéeykatam ñu leen di bunduxatal ñu leen di tëj bokk na ci signal bi ñu koy coupé ci anam yu déppul ak yoon loolu eh, it tamit eh, doon na lu metti loolu askan wi ba tax na Oustaz Assane bi na ci waaye nag xamal leen ne Walfadjri teel na bu dul fekk ba mu eh, ni ko Oustaz Aliou waxe woon yàggul Walfadjri mu ne la coupé signal yi waaye mënuñu ko coupé ci xol yi ndax lii dafa sax ci xol te leeru jamono ca kaw ca kanam ci lu baax waaye Walfadjri di doxal ndax euh, euh, la voix Walfadjri à travers la bande FM Walfadjri 99.0 ba léegi ñu ngi béy suñu waar ci Walf net et puis ànd ak suñu mbokku auditeurs yeeg internautes yi merci et merci également Pierre-Edouard Faye. jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Bob jërëjëf Oustaz Assane alors très rapidement ñu jox kàddu gi. directeur général bu Walf FM Walf TV Moustapha Diop ñu tàcc Moustapha moom itam mu ñëw ñu bàyyi ko kàddu bi. asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen ni nuyu yéen ñi nga xam ne yëpp yéen a bàyyi seen ay yitte euh, tey ñëw ci salle bi ñu duppee la jamono. di nuyu également doomu Sénégal yëpp yi nga xam ne ñoo ñuy déglu mbaa ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew su ma taxawee fii tey sama xel day dem d'abord ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo def Walfadjri lii mu nekk ba ñun ñu mën fi nekk tey di liggéey te nekk duñ ci kaw suuf forcément sama xel day dem ci Sidi Lamine Niass sama xel day dem ci Abdourahmane Camara sama xel day dem ci Jean Meissa Diop sama xel day dem ci Mame Less Camara mi fi jóge bu yàggul dara li tax may fàttali ñooñu moo di ne dama bari na lu nguur ñeme teg Walfadjri du ko teg loolu mooy sama ngëm-ngëm man te dinaa wax léegi lan moo tax lii ñuy dund yoon mënu ko expliquer benn waa mënu ko expliquer ci réew mii ñu nekk dañ koy woowee Sénégal mais sama xel day dem également ci ñi nga xam ne ay fans club lañ ay soppey Walfadjri nga xam ne dañuy dem ba bu Walfadjri nekkee ci jafe-jafe ñoom ñooy gën a sonn ñu ñi nga xam ne ñoo fi liggéeyee. sama xel dem également ci les travailleurs de Walfadjri góor ñi jigéen ñi journalistes yi techniciens yi administratif euh, caméraman ñi nga xam ne ñu ñuy liggéey ak ñoom xam nañ ne at yi ñu génn lu mburu dajul ci taal ba ñu ngi koy daj et pourtant. il continue à garder la tête haute di ko vivre stoïquement avec dignité te ñëpp xam nañ jafe-jafe yi ñuy dund di ko dund ak seen famille Ablaye boobu wax na ko léegi dara gënul metti bàyyi sa njaboot ne leen maa ngi dem war faj liggéey te boo ñëwee da ngay croiser les bras ba ñibbi jot nga jibbi même bu la doon fay weer wu dee neexul sa xol travailleurs yooyu il faut ñu rendre leen faj Walfadjri nag lii di ko dal euh, du lu bees te effectivement parce que lu bees que ñu commencé di ko miin te miin ko jëye la danger la ci réewum Sénégal mars 2000 euh, mars 2016 fii la ñu toog di voté ab référendum ñu ne coupé nañu signalu Walfadjri keroog ci la Sidy Lamine Niass yëkkatee waxam ju réy joojule nga xam ne ba léegi dañ koy fàttali ne Macky Sall su fekkee nii la ko bëgg a yeggalee du ko fekk alors jamono di dox ba Sidy Lamine yàlla jëre ko fi en décembre 2018 bokk na ci waxtaan yi ñu njëkkoon a waxtaan man loolu laa mas di défendre moo di ne man du ma Siri Lamine Niass Cheikh Niass mii du Siri Lamine Niass keneen kuy liggéey ci Walfadjri du Siri Lamine Niass am na combat yu Siri Lamine Niass doon engagé di ko def defe naa ne ñun mënuñu ko moo tax ñu ne woon lépp loo xam ne dafa jëm sa marche lépp loo xam ne dafa jëm ci ay position politique ay dugg ci xeexu politique suñu yoon newu ci dañuy taxaw di def suñu liggéey ni nga xam ne noonu lañ ko mas di defee te ku seetlu Walfadjri xam ne li tubaab bi wax le traitement des faits ci lañ nekk mësuñu ci jóg te duñ ci mës jóg bu neexee yàlla jamonoy dox ba mars 2021 ñu coupé waat signalu Walfadjri toujours au mois de mars coupure boobu ak beneen ba ca topp nga xam ne moo ànd ak les événements de mars li nga xam ne moo ci nekkoon wuute ak bii am tey mooy coupure yooyu ci CNRA la daan jóge bi Babacar jaan jiite su yooyu daan am ñun daanañ am daanañ xam kan moo ko coupé ak kan la ñuy waxal mais li doy waar ci coupé bii nga xam ne moom la ñu nekk di ko dund depuis pratiquement une semaine moo di ne ba fii ñu taxaw nii di waxtaan kenn ci ñun mënul wax ne diw moo ko def lan moo xew mbokk le jeudi bii ñu wees war na mat juróom-ñetti fan tey ñuy def émission keppaar gi ni nga xam ne noonu lañ koy defee bés bu nekk ñi koy seetaan di ko déglu xam nañ ko ak lu mënti xew dañ koy def li beesoon bés boobu moo di ne dafa daje ak ñu joxe verdigu mbir mi ñu tuddee affaire Sweet Beauté jour boobu ci plateau keppaar gi Pape Mokhtar Diallo moo fa nekk Pierre Edouard Faye Oustaz Assane Diouf Mame Biram Waj Cheikh Niass ñi ma tudd kenn ku ma ci jël dama jàpp ne moo gën a responsable fuuf Moustapha Diop moo ko gën a bëgg fuuf jàmmi réew mi donc du ay nit yoo xam ne dañuy wax wala ñuy def luy taal réewu Sénégal bi ñuy def seen émission le plus normalement bi monde man ma toog sama kër parce que fan yooyu dama xaw a feebar ci la ma Babacar Diagne bi jiite CNRA woo ci téléphone ne ma dama dégg ñu ne yi ngeen di wax yéen ne dañu coupé signal Walfadjri ma ne ko déggaguma ko de mu ne ma mais dama lay xamal ne. man maay président wu CNRA man maa war a couper maa ngi nii di dugg sama kër CNRA laa jóge amul benn décision bu couper signalu Walfadjri ci laa ko envoyé Pape Mokhtar mu wax ko bi mu ko waxee ñi ko doon seetaan ñëpp dañ ne Babacar waxul dëgg parce que effectivement signal bi coupé nañ ko et pourtant Babacar wax na dëgg du moom moo coupé signal Walfadjri bi mbir mi amee ñu kon ne def suñu liggéey ñu ne bon xëy na kon code de la presse bi ñu fi teg ne may na un gouverneur wala benn préfet mu mën a couper signal saa su ko neexee code de la presse boobule xëy na moo may autorité yi ñu couper signal Walfadjri te code boobu dafa wax ne suñ ko couper dañ leen war a jox notification Cheikh su fekkee dama jub nga jubanti ma mais ba fii ñuy waxee amul benn notification bu jugee ci benn autorité wu Sénégal wax ne lii moo tax ñu couper signal Walfadjri mais mbokk yi li gën a doy waar ci mbir mi mooy boobu ba léegi autorité wu Sénégal boo laaj mu ne la demal ci keneen. man mii ci sama bopp jël naa sama téléphone woo la ministre de l' intérieur muy Antoine Félix Diome jotuma ko mu envoyé ma envoyé ko message ba léegi tontuwu ci man mii ci sama bopp waxtaa téléphone ak le ministre de la communication muy Moussa Bocar Thiam wax nañ ba jeexal wax ji amul benn yoon bu ma waxee ne man yëg naa wala def naa ñu coupé Walfadjri démb ci guddi di alxames jot naa téléphone Babacar jaañ bi jiite CNRA ne ko ñun nag ñu ngi bëgg a jaaxle parce que ay père ak i mère de famille ñu toog lu mat juróom-ñetti fan ñu tëj seen bëri bu liggéeyukaay xamuñ ku ko tëj te xamuñu kañ lay tëj Babacar jaañ ne ma wool waa TDS wala nga woo le ministre parce que man du man su ma Babacar mi may dégg duma ko sosal lu amul ma jël sama téléphone woo Nafissatou Diouf bi nga xam ne moo jiite TDS te ñu bokkoon benn école bu ñu doon jàngee ma xam ko bu baax wax ak moom nekkoo ko damay doon ñëw aux nouvelles pour xam lan moo tax signal wal fajri tàkkul ba léegi mu ne ma wool Babacar jaañ ma ne ko déet Babacar moo ne ma naa la woo mu ne ma wool Babacar Diagne ma ne ko Babacar moo ne ma naa la mu ne ma Moustapha de trois mois du man du ñun ma ne ko d'accord bi ma demee bay ñibbi sama kër dawal sama oto ba toll fii ci Sacré Cœur moom na fi mu woowaat moom ci boppam ne ma dama lay dëggalaat ne li nga ma woo daf ma étonné maanaam daf ma jaaxal parce que du ñun ñoo ko coupé wool Babacar Diagne mbokk yi bu fekkee ne dañu nekk ci réew moo xam ne mën nga fekk télévision bu toll ne Walfadjri au moins deux cent familles dépendre ci pour di dund au moins nga mën a couper seen signal envoyé leen au chômage technique pendant une dizaine de jours te kenn ci réew mi mënula wax ne man maa ko coupé wala man maa joxe ordre pour ñu couper ko lu garaaw a moo tax ma gëm ne mbir mii du mbiru waa Walfadjri du mbiru les travailleurs de Walfadjri mbiru Sénégal gépp la Sénégalais yëpp ñoo war a jóg dakkal ko ne nañu bàyyi Walfadjri mu def liggéeyam ci jàmm ak salaam li ko waral mooy man bi ma nekkee ci bopp Walfadjri ba léegi les travailleurs ñu ngi nii toog jàkkaarloog man su ma waxee ay safaan nañ ñëw weddi ko amu ci kenn ku la masa a woo ne ne Moustapha Diop moo ma woo téléphone ne mën naa waxee nii wala bu ma waxee nii mës je fais confiance à tout le monde parfois on me dit tu fais trop confiance aux gens avec qui tu travailles ku ci nekk tu fais ton en tout liberté en toute responsabilité d'ailleurs les rares fois bu man ma jël sama téléphone woo kuy liggéey ci Walfadjri day fekk ñu saaga ma man wala ñu saaga keneen ci Walfadjri ma bañ ko tontu ma woo ñu fiy liggéeye rawatina jigéenu Petit Déj yi ne leen bu leen ko tontu buñ ñu saagaa ñun duñ tontu buñ ñu xasee ma ne bu kenn tontu mais ba kañ jusqu'à quand on va attendre ñuy wax nag pour jeexal bañ a guddal que ni jot na ñu bàyyi waa Walfadjri ñu def seen liggéey ci jàmm ak salaam parfois da ngay toog ba mu jàgg nga ne non seulement on nous empêche de travailler mais on nous manque de respect pourquoi parce que fii ay père ak ay mère de famille ñoo fi nekk am njaboot fii ci Sénégal am fi ndey ak baay bis bu nekk ñu xëy si fi du ñu def luy taal am réew su ñu amee confiance ci RTS ne du taalum réew am confiance ci TFM na du taalum réew am confiance ci Zik FM wala Sen TV ne du taalum réew am confiance ci Lamp keneen keneen ne du réew mais pourquoi mënuñu am confiance ci doomu Sénégal yi nekk Walfadjri ne du taalum réew ñun faruñu ci parti mësuma far ci parti te bokkagul ci sama yéene far ci parti amul benn parti politique ci Sénégal bu mën a ñëw taxaw ne Moustapha Diop ñëw na fekk suñu réunion wala Mame Birame Wathie wala Pape Makhtar Diallo wala keneen ak keneen intéressé wuñu ñi bokk ci parti dàqu ñu ñu ko dàqu ñu ñoo jàng mais on a fait un choix choix bi mooy nekkuñu ay jàngalekat nekkuñu ay magistrat nekkuñu ay avocat nekkuñu ay mécanicien nekkuñu ay menuisier ay journaliste la nañ ñu bàyyi ñu def liggéey journaliste mooy lan wuti information jox ko maintenant su maam Birame Wathie toogee wala Ramatoulaye Sarr wala Aliou Sow wala Pape Sané wala keneen ak keneen nga damay def chronique pour analyser l' actualité du ma ne ko mu defe ko nii wala defe ko nii kuy koy xaar ci man say boo nga tëj Walfadjri définitivement mais doo ko am mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant